mi ngi lay dégg mi ngi lay dégg. Gora Sock. waaw. man man man mun naa waat ne maa rab kese. ba dara di xew mun naa waat ne maa rab mbooloo ba dara di nga wax ñu ay waxu tàppale ci yoon boo bëgg a bëri da nga naan bëgg a bëri mais bul ko métti ci nit ki ay détails ne am amul yow yow ba ngay bëri ñu xaar ñu xaar ba ngay bëri ñu xaar suñu bëri si àdduna est-ce que comprends donc bu bu at bu doxee tey wala làmb dox tey ba ñu naan ba loolu yoon man sàkkul ma woon bëri loolu bëri. li nga lu bëri yow la. yow lan la nga bëgg a rek. 2012 mais dama gis ne ay xale lañu lamb temps bu gàtt la te li ñu la fay si yow yow Serigne ah, Ndiaye bu ñu la ko fay si lamb nga dalee bëri ba léegi. nee na ban ana nga ko dugg ci lamb góor nee na ban ana nga dugg ci lamb. non man loolu bu concerné wu ko loolu dama bëgg xamal ni ko boobu li nga fay man ak moom ba mu dalee bëri ba léegi kenn musu ko ko fay ci lamb moom ba mu dalee bëri ba léegi laa di musu am kese bu toll noonu. mais est-ce que jàppoon tamit loolu jaadu na waaw donc ci sa situation rek Lamine Lamine da ngay liggéey. Lamine man émission pour Serigne Ndiaye wala déedéet man émission pour waxtaan ak mbëri fi nekk. bu bu fekkee suñu fayam ñoo ñu bàyyi bu fay ñu xaalis bu ñu bëree. dañoo war a bëree mais bu ñu wéree amateurs yi ak supporters yoo xam ne taxawul. ba nga daree bëri ba léegi ñaata at de carrière li la fa yow Serigne Ndiaye mënuñu ko fay ci kase. nga ne Serigne Ndiaye am mbooloo bu Serigne Ndiaye amoon mbooloo ko duñ la fay loolu. bu nekkoon combat kenn du la fay loolu. ndax li nga nar a bëri yow Mambara li nga nar a fay yow Serigne Ndiaye boo ko tuuti yoon donc waxu taabal ni boo ko ragal nga fi wax ma li nga doon dama la ko nangul ko bu toog si ay média bi nga xam nga kenn xamee woo dinaay ñàkk nga tegal si yoon xam nga xam ne carrément que ñun gënoon champion ñun gënoon gënoon am yaakaaru làmb sàkkul bu bëre ak yow da nga dox suñu combat yow bu ñu bëre. Lamine teggil fii nga teg di nga teg suñu gerte bi de. teggil dëgg ma Lamine laa waaw. xam nga mais lépp na nga teg si yoon xam ne carrément ñun affaire sport affaire sport moo ñor moo bàyyi. Mm-hmm. yaa ngi comprendre taamu gàtt la xaarul kenn xaarul kenn kenn kenn li nga fay boo ko ay mbokkam yëgoon tey léegi ak lu mujjee bëri yow da nga yabaate. ah. waaw. moom dafa xam ne daf fay. ah. bool Baye Ndiaye léegi Baye Ndiaye dugg léegi moo moo ñaar la ñaar la fay saa waay. ndax mu bëri benn benn lu ma de. waaw ah, Baye Ndiaye koo neexee na ma woo. Ah. bu dee mu ngi bëgg combat ba léegi. waaw yow. jeex na amul kay léegi. voilà yow Serigne Ndiaye yi mu wax nii yëpp yi mu wax nii yëpp. waaw ah. ay waxu a malaata rek. ay weeru koor la nag billahi la si laaj vingt cinq minutes Serigne Ndiaye hmm. mais xam yëpp ay waxu tuuma mais dama dugg si hmm. li ma ko wax nii da koo neexul rek li ma ne ko man du mbër buy bëree faye ko millions ñu yokkal un million deux millions ndax mbooloo mooy topp loolu loolu moo loolu lay siisu te li ma ko wax dëgg la eh, Gora Sock bu maa faye ko eh, millions ba léegi ko si yoon Gora da ngay nangu. ñaata lañ ko fay loolu. Baye na ma 13 millions. Baye Ndiaye moo na ko Baye Ndiaye woote waaw moo doon moomu. nee na Baye ma fayee léegi mu jël naa nee na Baye Ndiaye WhatsApp naan mi ngi eri eri. Baye Ndiaye mi ngi ci en bi woo na woote WhatsApp. ah waaw. léegi ngeen jubóo kay Baye tëgg ko léegi pour le 30 juin nekkoon na coupé Baye Ndiaye woote. góor hmm. góor soog bi dañ la ñu pare bu bëree lu nooy la lamb ji fii lu nooy amul boo bëggee lu nooy da ngay dem da ngay da ngay da ngay dem bële ngay gën ay tabat leen <laughs> sa mbokk yi. Serigne Ndiaye waay jërëjëf. Serigne Ndiaye ngi seetaan. Serigne Ndiaye ñu ngi lay da ko def Mamba la. mais maam bëgg nga lu diis de en en vrai sax maam bëgg na lu diis de. waaw ah, yow tam temps yi da diis de. macha allah laa jaagee bëri ay moom non si ay ponkol laa jaagee bëri. billaahi wallaahi wa kitaabi ponkol laa gën a mën a bëree ci cek ci malal ci boy sey ay dóotam est-ce la man su ñoom laa jàngee bëri ci ay ponkol rek mu ma jàngee bëri si sama morom sama taay man aw ma problème bëri ponkol bëri ponkol laa gën a mën que bëri booy ndaw yi lese booy lesee affaire yi comme am la mais billaahi li ma la wax sànq nii am na sama carrière góor mi toog sànq bu léegi di expliquer ay victoire nangam ak nangam quoi dama la liimal lu presque ay sept mbër rek saa waay duggaat si si kii saa waay duggaat si ligne bi bis ko maam la. waaw Seydina Diagne Waalo maa ko daan. Senter bu Lamsaar. man maa ko man maa ko daan. Coppet bu Lamsaar maa ko daan dugg la Lamsaar deux fois te jamono jooju ñun Senter nekkul kuy daan yaa ngi fàttaliku ku yi mu doon daan kaay. is ko maam la. samay daj nga ma la combat yoo xam ne nii gars yi xamul ko daan Ndiol Dias daan trompeur. trompeur benn. waaw doo ma la daan Ndiol Dias daan trompeur. su ko la man dama bëri ay combat yoo xam ne benn saa nii ñi ma leen daan chaque jour su ma leen daan comme fi Serigne Ndiaye ñu toll ñu yaakaar nañ si làmb daan. kon Serigne Ndiaye ko jox nga daan ko. ko mënul woon daan naa ko jël ma am jabar am doom sama doom di jàng ci ci école ba am nekk fa ak ay nawle xanaa on waaye man may jàmbaar damay liggéey Serigne Ndiaye li wax nii dama si ànd wér làmb bu ñu la fayee taal du la xaar da ngay jël nga dem. soo paree may nga li ma doon wax. nit ku nekk am nga nit ku nekk am nga choix boobu kii dama koy nangul soo am si diggante moom Serigne Ndiaye kooku du ma si dugg moo tax bi mu expliqué man kooku moom la concerné mais man instant bi ñu toll nii. Hmm. man leer na ma ne carrément Serigne Ndiaye su ma koy jël wala tey booy nday su ma leen jël fii nii benn instant pour may saas xaalis moom may boole ak ñoom mais du pas palmarès wala affaire noonu quoi léegi comme moom dafa yor promoteur boppam ñu koy waroon adversaire benn instant nii hmm. plan A bi mu ngi mais man sama plan A mu ngi nii sama plan B mu ngi ah. A wu

xamul lu may fayeeku te doo xam lu may bëri doo xam lu may fayeeku même su ma bàyyi jaay fayeen dërëm ma jël bi. bu la jaralee bu ma jaralee moom du wax kañ laay bëril wala kii laay bëril moom mooy mbër boo xam amul supporter bu ñu ko bu fayee trois cent mille su war na mën ko dooleel di ma topp mboor mboor yi di ma topp sama mbokk yëpp di génn kon su ma koy jël moom moom bu nekkoon sama ginnaaw du ma kalaw naa moom fi mu xam naa phase gi mu nekk ay maa ko yor ñaata mbër ko laaj fii mu naan du bëre ak sambalaa laaj ko te Zambala daan ko. daan Zambala ko daan Iba ah. waaye yow da ko mbott jiitu mais la ma tax boo ko waxee ci Zambala muy wër-wër moom Zambala xanaa du combat ni ma nekkee combat war ko may sens noonu laa mën a may Zambala sens mais ñëpp nag catégorie ngay wax ñoom ñëpp pour mu bëri ñu dañ may fay lu ma jaral su ma fay lu ma jëm ci bëri nit. mën nañ dem sax ba si përi ma ndax làmb moom comme ni ma waxee rek làmb kenn moomu ko yàlla mooy dogal tey kii suba sax mën na ma bëreel grand combat kii mën na ma bëreel grand mhm. suñu borom la mhm. mais nag lépp lu mooy dugg ma dama koy teg ci temps waaw ko ci yoon teg ko mhm. ci lu wóor ci écrit mag laa ne nekk jàmbaar ay coach su nekk fa peut sukka nekk fa laatoo nekk fa suñu mag Papa nekk fa ma ne ci ñoom Modou Lo samay rakk nekk ci ginnaaw ñoom Talfa ñoom aada ak ñoom daam seen comme man nekkuma fi di mbër bu ma jot ma jël ko Serigne Ndiaye pour ma jël ko il faut ñu fay ma li may laaj suñ ma ko fayee jëru muy dem ci benn télé tal télé fu nekk mu woote du ma bëre ak Balla ah, mii léegi li may laaj bi ma ko doole léegi ma génne ma tàggoo kenn damay bëre xam nga damay bëre moom kii même su ma ko rawee mu bëgg a bëre ak man xam ma wax rek su ma bëre ñoo doon maa yow même même. waaw léegi même même maa sama signature booy ma bëree nii ku ma si ñëw signature damay ñëw. toog Mame Balla même su ma ko rawee wala moom mu ma. mais mais tax ma war a bëri Moussa Ndoye. mais da nga jàpp rawante Serigne Ndiaye sama nawle la man Serigne Ndiaye. wallaahi noonu laa bëgg a bëri ak moom du dara moo tax ko dama bëgg a bëreeg moom ndax dama xam ne ñaari jàmbaar moom jàmbaar la mais xel yu muy teg ak yu muy ñooy da ko teg fële xam na man ñu koy ñi muy woon naan ay promoteur nanga doo ma ci bundu kër kenn sa ju ma ko doo ma taataan kenn laajuma kenn dépasse maa joxe sama bopp dépasse su ma mën jël sama alal jaay bi ma am su ma mën am naa samay alal yu ma mën a jaay su ma mën naa bëri ji mbapat am naa doole comme ñëpp lu ma jaral laay bëre wala lu ma bëre moom jëru muy wax fenn moom mooy xool bëre 500 bi ñu koy doolee 100 mille ak 50 mille ndax moom musu ba dee ñetti kaar du ko topp. sëñ Ndiaye mi waaw te man non waaye xanaa combat mujj bëre moom Forza bokk journée fekke ma ko su ma demee bëre sëñ Ndiaye ci combat mu bëre Forza Forza ko rate Forza su ma ubbi ñu am lu may bañee ndax maam am la. Forza champion la ñaar même boobu ñaari nga foofu yëpp. waaw comme ci ah. Mame Balla. waaw ah. mag Balla Mame ay lamb la. naa papaam wax benn interview bëgg dem ko jël ko dem jël kon lu muy topp ci ginnaaw góoru soog mais xam nga ñoom seen i pièces rek. mais est-ce ko jëlee yow yaay nekk le grand ndax man ñi ma war a bëreel bëri Serigne Ndiaye mënu ma def champion man mënu ma ko def champion mën nañ bëri ba bàyyi bëri suñu suñu bi mu déclassé am na bëri ñu ko tuddal bëriwul ak ñoom lu mm-hmm. mm-hmm. daanee jaan limousine maa jëli Cobra daan ko. Mm-hmm. te boobu ñoom te boobu mag Aliou Diop lamb la lamb du ay tëkkonte moo tax ngeen a bëre mën nañu coow te du ngeen bëre. Tonnerre ak Modou Lo coow nañ ko fu nekk te bëre wuñ lamb loolu du ci dara mën nañ coow mbëre ak mbër te duñ bëre maa ngi maam Balla mën nañu coow duñ bëre mën nañu bañ a coow ñu bëre mais kii ba ñu ma bëre ak moom Serigne Ndiaye ba ñu ma bëre ak moom mais maam Balla bi tam may bëre ak moom li ma wax leer na su ma fayee li ma jëre ma bëre ak moom Batista gars yi nee nañ da ngaa rep Baye Seydi Fall mu ngi ci commentaire yi Xaadim Anta Seck maa ngi lay nuyu bu baax a baax borom borom ETDR sama sama sponsor ah Xaadim Anta mooy sama sponsor leader maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu kañ mais Baye Seydi Fall nee nañu Batista am nga sérieux problème xalifa ab xalifa Babacar Diop ñu ngi koy bégge bu baax a baax ak Kiti Sàmmel Zarko bu Cambérène ñoom ñëpp ñu ngi ci commentaire ba ci tumaani ah di leen bégge bu baax a baax di leen wax nag kuy wax moom kuy déglooy mbokkam ñu jàpp ni Mame Balla ak Gora Sock combat la